الحمد لله الذي ابتدى بحمده قبل أن يحمده الحامد والصلاة والسلام على طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها قبيبي ومصطفاي ونور قلبي وقرة عيني سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بهدايته إلى يوم الدين allahuma ajal amalana kullahu saliha wajcalhu li wajhika xaalisa wala tajal fihi li ahadin xayrika shay'a mbokki jullit ñi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu yëkkatee kàddu yi di sant suñu borom yàlla moom mi nga xam ne dégg nga moom dong mooyee ñu sant ko moo ñu moom moom malaaka yi ak jinne yi moom fépp ak lépp moom suñu borom moom àjjana ak sawara moom arasa kursi moom suñu borom sunu borom moom ñu ngi koy ñaan muy julli di sërmal si sayyiduna Muhammad mu ma këram ay saxaabaam dégg nga ak képp koo xam ne fës ngeen ngaa wommatu ci bisu si si yoonu njub bis pénc yi ñu di loo sunu borom moom mi nga xam ne moo ñu may kàttan ak fekke ba ñu mën a àndaat yéen seen tafsiru quraanu karim ci amal waxtaan ak yéen di seen mbokk seen taaliba Ousmane Gueye di sunu borom yàlla lañuy ñuy waxtaanee jëmmam dongu tax. ba ak ngistalu ci dugg dégg nga ak déggtalu ci dugg tey bu neexee sunu borom yàlla ñu war a tàmbali ak yéen ci suuratul kahf suuratul kahf yi moo nañu tuddee saar bi nga xam ne mooy waa wa waa xuntuwa mooy xale yi nga xam ne dégg nga maam dañoo demoon gàddaay tonguwaa dëkk ba daldi daw dégg nga dugg ci aw xuntu dégg nga suñu borom def fa miracle goo xam ne kenn dooru ko fàtteeti yàlla rey leen 309 ans ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent soo ko kontee ci chamsiya day nekk 300 300 300 300 300 ans waaye bu fekkee da nga ci xamariya da nga ciy doole 9 ans moo tax ñu ne 309 ans téeméeri at ñetti téeméeri at yu tafal juróom-ñeent. sar di suuratul Yuusuf suuratul kaaf yi ma mu ngi làmb ci téeméeri aaya ak fukk dégg nga mu ngi wàcce màkka saar gii di suratul kaaf mbokk yi am na ak sabab sabab mooy ñu am na lu xew ba tax sunu borom daal di koy wàcce loolu mooy sababum nuzul bu fekkoon xadis la dañ naan sababul wurud mais bu fekkee aaya alxuraan naan sababum nuzul sabab bi tax sunu borom la wàcce ay surtu kër fi nadr ibnu xaaris dégg nga ak ibnu muid dañoo demoon ci ab yahud dégg nga di ko laaj naka ñun daal dafa am waaju ñuy sonal ku tudd muhammad mu nga màkka fekk yahud baa nga jiw mu nga labbe baa nga woon fële ca booru madina mu ne leen dem leen ci muhammad kooku di leen sonal ngeen laaj ko ñetti laaj ñetti laaj bu fekkee tontu na leen ñaari te tontuwu leen ci benn ba ni ngeen xam ne ab yonent la ni ngeen ko topp dégg nga ñu daal def ab délégation daal di ñëw si Seydina Muhammad ñu ne ko yow Muhammad dañu leen laaj ñetti laaj laaj bu njëkk bi mooy ñan ñooy asxaabul kahfi xale ya nga xam ne dégg nga dañoo gàddaayoon waa dëkk ba tong leen daw dugg ci aw xuntu ñooñu laa bëgg nga nettali ma seeni mbir loolu mooy benn bu fekkee ab yonent nga ñaareelu laaj gi lan mooy ruux ruux bi nga xam ne moo tax doomu aadama dund mooy lan su borom ne ko wa yasalunaka ani ruux daanu laaj ci ruux loolu mooy ñaareelu laaj gi ñetteelu laaj gi ñu laaj ko ne ko yow Seydina Muhammad dañu lay laaj kan mooy Alexandre le Grand yahudi ñoo ko tuddee woon noonu mooy Zulqarnayni gi yàlla wax wa yasalunaka an Zulqarnayni qul sa atlu aleykum minhu dikra ñetti laaj yi lañ laaj Seydina Muhammad Seydina Muhammad ne leen dem leen ba ëllëg boo leen mu tontu leen mu fàttee wax insha allah Seydina Muhammad waxul insha allah da koo fàtte allahu akbar sa ëllëg sa sunu borom ne cel ne pat waxu ko dara xam nga sunu borom dafa am fayda mu waroon wax insha allah waxu insha allah sunu borom ne cel yónnul Jibril dara koy bàyyi foofu sa ëllëg sa sa ginnaaw sa mu nga chaque jour Seydina Muhammad di xool ndax Jibril dina ñëw pour dimbali ko mu mën a tontu yéeféeri Jibril ñëwul suñu borom ne cell ba mu mat fukki fan ak juróom allahu akbar fukki fan ak juróom Jibril soo ko wàcc ñëw di nettali Seydina Muhammad moo tax mu ne ko yow Jibril ah yow Jibril gëj naa laa gis na mën naa la ah fukki fan ak juróom gisuma la mu ne ko wa maa natanazzalu illa bi amri rabbik ñun sunu borom dong moo ñu wax wàccal ñu soog wàcc léegi nag sunu borom daal koy xibaare nag yahudi li ñu ko laaj lii nii yëpp fa la koy waxaat ne wala taqulanna li shay'in inni faa'ilu dhalika ghadan illa an yasha allah dégg mu ngoog kon loolu mooy sabab bi tax sunu borom yàlla wàcce suratul kahfi sunu borom di si nekk diggante ki nga xamante ne mooy Alexandre la Grand ak xale yi duggoon ci xuntu wa di si fa nettali tamit ki nga xamante ne mooy histoire Moussa ak Xadir muy lu yéeme lool. sootul Kahfi mi ngi wàccee màkka te xam ngeen ne saar yi wàccee màkka dégg nga maam mbiru pas-pas moo koy tax a jóg ak mbiru gëm bés pénc waaye saar bii moom spécial la si sunu boroom mu ngi tàmbalee saar bi ci ak cant ak cant la tàmbalee saar bi mooy alhamdu boo xoolee si alxuraanu karim am na juróomi saar yoo xam ne dégg nga maam sunu boroom alhamdu la ko tàmbalee anaam ci la bokk saba ci la bokk faatiri ci la bokk alkahfi ci la bokk ak fatiha juróomi saar yi yépp sunu borom alhamdulillah ko tàmbalee sunu borom ne bismillahi rahmani rahim maa ngi tàmbalee samay wax ci turu yàlla mi nga xam ne arrahmaan yi mooy yéewal mooy xéwal képp ku nekk ci biir àddina moo xam nit la wala jinne wala bahima xéwal goo mënti am ci àddina yëg na sunu borom yàlla moo la ko jox te moo la koy xéwale arrahim yi waaye nag suñu borom yàlla moomu mooy ki nga xam ne mooy yërëm jullit ñi ba yowmal xiyaamee ñoom dong ñoo koy moom mu nga xaalisata yowmal xiyaamee comme ni ko suñu borom waxee fa suuratul Araaf yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu yàlla mu ne ak cant ñeel yàlla ak di leeral lu jëm ci alxuraanu karim bi nga xam ne dafa jub xoccu te amul ak dëngate gu ci xam amul ay mbóosóor amul wax joo xam ne wax ju juyoo la sunu borom ne الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا sunu borom ne alhamdu yëgal ne cant lillahi ñel na yàlla allazi ma nga xamante ne anzala alkitaaba mu wàcce téere bii di alquranu karim fa abdihi ci ab jaamam muy seyduna muhammad dégg de boo bëggee dégg wax ji abdi bi da koy tëb da naan anzala moo wàcce moom sunu borom alkitaaba téere ba ala abdi ci jaamam bi di seyduna muhammad de diirëb ñaar fukki at ak ñett la sunu borom yàlla wàcce alquran seyduna muhammad mu ngoog walam yajal dégal na sunu borom deful iwajan ak dëng lahu ñeer alquran gii de alquran gi amul dara lu ci dëng lépp dafa jub xoj moom alquranu karim lépp lu mu wax dëgg la lépp lu mu atte ci ak maandu la ko teg moom alquraanu karim mu wax suñu borom mu continue qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladina ya'maluna as-salihat ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا sunu borom nee na qayyiman allahu akbar alquran dafa jub xocc moom sunu borom nee na alquran dafa jub xocc amul dëngate gu ci am dama ko wàcce tamit li yunzira ngir mu xëpp baasan ak mbugal shadidan gu tar ci ñi nga xam ne ñoo ko wedd dégg nga fan la jógee moom alxuraan ji min la doon ho mu ngi bawoo ci sunu borom yàlla alxuraan kenn wàcce ko nit fa fabriqué ko jinne fabriqué ko as malaaka yi waxuñu ko Seydina Muhammad créé ko waaye alxuraan waxu sunu borom yàlla ci moom ci bo ci sunu borom la jóge dégg te ci xam-xamam la ko wàcce moo tax mu ne anzalahu bi ilmihi wal malaikati yashhadun suñu borom ne ne maa wàcc alquranu karim si sama xam-xam te bawoo kenn ci kul si moom moo tax mu daal di wax ne sa suratu nisa afala yatadabbaruna alquran walaw kaana min indi gayri llahi la wajadu fi ixtilafan kathira suñu borom ne ne xanaa yéen doo leen doo leen settantal alquranu karim walaw kaana min indi gayri llah suñu borom ne ne alquran bu bawoon si keneen ku bokk la yàlla la wajadu fi ixtilafan kathira daan ci fekke ay wuute yu bari waaye nag ànd ak loolu lépp alxuraan amul wuute amul ay juyooloo min la dunhu ci yàlla la jóge yàlla wax ne damaa wàcce téere bi ngir wa yubashira al muminin dama ko wàccee ngir ngay ne leen ajjana ne leen sunu moom yàlla mu leen di préparé ajjana ne leen ñi nga xam ne ñoo gëm ba pare wa yubashira al muminina allazina yaamaluuna ñi nga xam ne ay jullit lañ ba pare yaamaluuna solihaat ñuy jëf-jëf ju baax kon ndekete yow nit mën na taxaw ne man ab jullit laa lank ne du julli du woor du jaamu ci lu mën yàlla du tënku ay ndigalam du bàyyi ay tereem déedéet wa yaamaluuna solihaat mu ne ñii daal anna lahum ajran xasana ñii sunu borom nee na maa ngi leen di préparel gu gën a rafet ci pay yi mooy àjjan ak lu dax ak lu dax àjjana mooy gis suñu borom yàlla xam ngeen ne buñ duggee àjjana firdaws insha allahu rabbi dañuy gis suñu borom foofu yal na yàlla boole ci loolu waay suñu borom day toogoo waa àjjana ne waa yéen waa àjjana ndax am na lu am na ndax xéwal mat na ñu ne waa ñu suñu borom daal ñu ngi sant ñu ngi sant de la ñu digoon ñëpp daal dégg nga maam def nga ko suñu borom ne waa yéen xanaa yéen du ma leen defal loo xam ne moo tax àjjana ñun ko ah yow suñu borom ñun xéwal gu ñu xéwal nii moom daanaka ah ah ndax am na lu tax sunu borom nee na ngeen gis ma man moo dàq àjjan allahu akbar subhanallahi almalik sunu borom daal di génne waa àjjana daal di gis sunu borom yàlla moo tax ñu ne sidina Muhammad ne ne sunu borom defal lu xéewal gu gën a rëy waa àjjana ñu gis seen borom yal nañu yàlla boole ci ñooñu mu ne bu ñu nekkee biir àjjana maakifiina sunu borom nee na bu ñu nekkee àjjana maakifiin dañuy sax dañuy béen ca àjjana ja fii ci biir àjjana abadan ba faw maanaam bu ñu duggee biir àjjana dégg nga maam amatul génn amatul génn de moom bu ñu fa nekkee mu dégg maam nañ fay sax ba faw moo tax ñuy ñuy nettali xissa ñu teel a Idris ñu tal a Idris dafa toog moom yàgg mu ne sunu borom damaa bëgg nga rey ma damaa bëgg visiter sawar sunu borom daal di yónni malakal mawti mu daal di rey yonent yàlla Idris ba mu faatoo ñu yóbbu ko aj sawara mu daal def visite sawara ba pare daana sunu borom man de gis naa sawara waaye nag sunu borom damaa bëgg nga yóbbu ma àjjana moo xool àjjana nu mu mel sunu borom yàlla daal ah, mu daal di dugg si bi moom Idrissa di xéewalu gis xéewalu àjjana yi dégg nga ba mu yàgg mu daal di tëdd jaaxaan nekk fa nekk fa nekk fa ab diir malaaka bi nag waaye yow sa visite bi mat na gerte génn ñu dem nga delluwaat àjjana mu ne rek dellu du ma génne lank kandaare tëdd si biir àjjana suñu borom daan ne waaw ña jàpp ñooy jàppante rek malaaka di jàppante ak seen taa Idris mu ne ko génneel yéen taa Idris lank ndek du du ma génn mu ne ko génneel mu mu lank suñu borom daan ne waaye yéen loo xew Idris daan ne ko waaye suñu borom yàlla yow li nga waxoon yëpp man def naa ko mu ne ko ah mu ne ko yaa ne ku bàkkin bu ñëm dund dana dee kullu nafsin zaa'iqatul mawti man dee naa mu ne ko ah, loolu moom dëgg la mun yow sunu borom yaa waxoon ne wa in minkum illaa waariduha yaa ne kenn ku nekk si ñun dana jéggi sawara man nag jéggi naa sawara ba noppi ah mu ne ko loolu moom dëgg la mu ne ko yow sunu borom yaa ne woon képp ku dugg àjjana dootul génn wa maa hum bi képp ku dugg àjjana dootul génnati waa ji bëgg maa génn àjjana mu ne ma lànk ah ñoom tax ñu ah noonu lañ fa Idris ñoom tax Idris kon mu ngi àjjana wa rafanaa aliyan buñ duggee àjjana mbokk yi amul génn waat de moo tax mu moo tax mu ne maakisiina fiihi abada alxuraan gi dama ko wàccuwaat ba tey la moo tax yàlla wàccuwaat ko am na geneen illa gu tax suñu borom wàcce alxuraan loolu la nettali ci aya aya ñeent moo tax mu ne wa yunziru alladina qaalu ittaxada allahu walada mu ne alxuraan gi ko wàccee ngir wa yundira alladina ngir mu xëpp ña nga xam ne qaalu nee neey bu ko wax nee nañ de déedéet da nga naan nee neey waxee nañ de ittaxasa jàpp na allahu yàlla wala dan doom subhanallah jaamu na ne alquran gi dama ko wàcc dégg nga ngir mu xëpp ña nga xam ne nee neeñ ne yàlla dafa am doom subhanallahi almalik yàlla ñi ko bëri ay wutal doom bari na de am na ñu ne yàlla am na doom mooy malaaka yi am na ñu ne déedéet kooku doomu yàlla de ñu ne Uzayr moom mooy doomu yàlla waxaatil yahudu Uzayr ibnullah yahuud ñee nañ yàlla am na doom doomam mooy Uzayr subhaanallahi malik nasaara yi déree kooku doomu yàlla de Isa mooy doomu yàlla waxaatil nasara Isa ibnullah nasaraani nee nañ yàlla am na doom mooy Isa subhaanallahi malik yàlla nee na njël benn yoon ba kaddu googu buñ ko njëkkee wax di askan la sunu borom yàlla doom yàlla mu ne tuuteetee asamaan si xar tuuteetee dégg nga suuf si mu nga xotteeku tuuti moo tee montagne explosé bi ñu waxee ne yàlla am na doom takaadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqu al ardu wa tahiru al jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattaxida walada suratul suratul Maryam yàlla mu ne tuuti moo tee asamaan si xar tuuti moo tee suuf si xotteeku tuuti moo tee montagne explosé bi ñu waxee ne yàlla am na doom qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allahu akbar kon mu ne sunu borom moo wàcce alxuraan gi ngir mu xëpp tamit ñi nga xam ne dañuy askane sunu borom yàlla doom yàlla continué ci aaya juróomeel gi ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا suñu borom ne maa lahum ñeelu leen bihi sa wax min ilmin ci benn xam-xam wala li abaihim te déet seeni baay tamit ñoom la ñuy wax ne Uzeer doomu yàlla la wala Insa doomu yàlla la wala malaaka yi doomu yàlla la suñu borom nee na loolu ñuy wax amuñu si genn xam-xam ñoom amuñu si xam-xam seen baay yi jiitu woon tamit amuñu si xam-xam kaburat rëy na kalimatan kaddu googu ñuy wax min afwaahihim kaddu googu di génne seen gémmiñ ya loolu lu rëy la ñuy askane suñu borom yàlla doom in yaquluuna yëgal na ñuy waxuñu illa kaziban loolu ay mbóosóor ay fen dong la ñuy def dañuy dural sunu borom yàlla ñi naan yàlla am na soxna mooy mooy Mariam mooy soxnaam Insa mooy doomam subhanallahi mari moom la ñuy du père et du fils et du saint esprit danañ yàlla juruma kenn kenn juruma moom kenn la moom coppaacul moom sunu borom yàlla qul kaana fihima alihatun illa allah la fasadata fa subhanallah rabbil arsi amma yasifun sunu borom nee suuf yëgal ne bu amoon am na ne beneen yàlla bu bokkul ak yàlla asamaan ak suuf dana toj dana xar kon yàlla kenn la mbokk yi dégg nga suñu borom continuer di nettali Seyduna Muhammad ndeysaan dafa bëgg aw xeetam mu Seyduna Muhammad bu suñu ñëpp ay jullit la ñuy doon bu suñu ñëpp àjjana la ñu jëm moom Seyduna Muhammad waaye moo tax bu ko yéefar yi weddee loolu def ay njaxare ak ay naqar ay tiis ci ab xolam ndax yéenewu leen sawara moom Seyduna Muhammad loolu def ko ay stress ba sunu borom wàcce ay alxuraanu karim di wax di nga rey sa bopp yow Seyduna Muhammad sa stress bi bàyyi njàqare am si ndax di ray rey sa bopp ci li métit bi nga koy métitlu laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina rahim fa in tawallaw faqul hasbiya allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim dégg nga moo tax mu nettali ne falaallaka baaqiun nafsaka ala athaarihim in lam yuminuu bi haada alxadisi asafa sunu borom ne falaallaka xalset nga baaqiun nafsaka di rey sa bopp yow seyduna muhammad sunu borom ne tuuti rek xalset nga rey sa bopp yow seyduna muhammad ala athaarihim si seen jeexantali in lam yuminu bi hada al hadisi bu ñu gëmulee alquran gi asafaran si ak njàqare yàlla mu ne tuuti yow sayyiduna Muhammad di nga rey sa ci ay ngir jeexantalu yéefar yi nga xam ne dañoo weddi alquranu karim allahu akbar suñu borom bàyyi na di leeral xéewal yi nga xam ne dafa na doomu aadama ak nu mu créé àddina dégg nga ak lu mu si def si biir moom àddina moom suñu borom loo nettali ci aaya juróom-ñaar suñu borom ne إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا sunu borom ne inna yëgal na ñun yàlla jaal naa def nañu maa alal ardi li nekk si kaw suuf ziinatan laha mu nekk tartar ñeel suuf lan moo lan la yàlla def ci kaw suuf yàlla mu ne man maa xotti suuf génn ci ay dex ak ay géej ak ay sewnde génn ci génn li nga xamante ne mooy gàncax gi dégg nga def ci ay garab dégg nga ak ay bayima yàlla ne lii mooy taar yi nga xam ne maa ko suuf lan moo tax yàlla def lii linabluwahum ayyuhum ahsanu amala suñu borom ne lii dama koo def ngir ma nattu leen xool kan si gën mën a rafet ay jëf yàlla ne taar-taar yi nga xam ne mu am ci àddina suñu moom da ko indi garal ko àddina garal ko waa àddina ngir mu natt doomu aadama yi kan moo si gën a mën a sellal kan moo si gën a mën a dudd àddina wax ay ju mel nii yàlla wax na ko fële sa suratul mulk tabaraka alladi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli cheyin qadir alladi xalaqa almawta walxayata liyabluwakum ayukum ahsanu amala wa huwa alazizu algafur suñu borom ne maa la indi fii ci àddina waaye dama leen di nattu ngir xool kan moo si gën a mën a rafetal ay jëf ahsanu amalan yaani axlos bul wax ahsan ku gën a rafetal waaye axlosu amalan kan moo gën a mën a sellal ay jëf moo tax xasanul basri daan wax naan annaasu kulluhum halka illa al aalimuun wala aalimuunu kulluhum halka illa al aamiluun wala aamiluunu kulluhum halka illa al muxlasuun wal muxlasuuna fi qatlin azim nee nañ doomu aadama yëpp ñu ngi ci anku ñu ngi ci ak sankute ñëpp dañoo alku ba mu des borom xam-xam ya mu ne ñi xam ñëpp dañoo alku ba mu des ñi xam ba pare di jëfe mu ne ñi di jëfe ñëpp ñu ngi si alku ba mu des ñi nga xam ne dañuy sellal mu ne ñii di sellal ñu ngi si ak danger gu rëy ndax bu ñu juumee tuuti seetaan yàqal lañ ko dégg nga mu daal di continuer suñu borom di leeral ne ni ma amee kattan pour def suuf soo xam ne dama fay damay bëtt xar ko des li nga xam ne mooy ay sewnde def si ay bëti ndox def si ay géej def si ay dex def ci ay gàncax ak ay garab noonu laa amee kattan dem foo xam ne du am dara ci yooyu muy ak naan du fexe goo xam ne léegi ma lay doon loolu la yàlla di nettali ci aay gii ci topp moo tax mu ne wa inna la jaa'iluuna ma alayha sa'idan juruza mu ne wa inna yëgal nañu yàlla ba tey la jaa'iluuna aji am kattan nañ pour def maa alal adri nekk ci kaw suuf saidar mu nekk papp goo xam ne jurusan ak naan foofee lay doon mu ne ni ma amee kattan fekk naan foofee goo xam ne dégg nga maam dara amu ca ma bët fa ay dew ay sewnde def fa ndox def fa géej def fa ay gàncax noonu la amee kattan foo xamante ne amul dara fa sax ma def ko noonu ma def ak naan fa yoo xam ne dégg nga maam du am gàncax du am ndox du am sewnde du am bëtu ndox du am dara moom sunu borom nee na am naa kattan pour def loolu àddina ni la tëddee di fii de am gàncax fii du am dara ñaar la ñi am ñi ñàkk ñi feebar ñi wër dégg nga maam dund ak dee asamaan ak suuf guddi ak bëccëg wa min kulli shay'in xalaqnaa da la'allakum tadhakkaruun yàlla mu ne lépp dama ko bind mu nekk ay paire lépp ñaar la lépp ñaar la ba si fiili courant yii ngay gis nii sax dégg nga maam dafa am ñaar ay paire lañ ba si asamaan si nga xam ne niir yi nga xam ne si day taw dafa am ñaari niir niir bu góor bu jigéen foo ñu dajaloo pour ndox mën a am subhanallahi malik yàlla lu mu wax dëgg la yàlla bàyyi na loolu commencé dugg ci nit yi la nag li tax a jóg saar gi mooy xale yooyu nga xam ne dégg nga maam dañoo daw génn waa dëkk ba tongu leen daw dugg ci aw xunt suñu borom faat leen fa ñetti téeméeri at yu tafal juróom-ñeent loolu miracle la de waaye an gi yëgal ne du loolu dong mooy miracle bi fi nekk de am na yeneen jommalaan yu am ci biir alxuraanu karim loolu yàlla di nettali si sa aaya gi ci topp moo tax mu ne أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا sunu borom ne am xasibta moo ndayoo seyduna Muhammad da ngaa njortu ne anna asxaabal kahfi naka ñoñel xuntuwa mooy waa xuntuwa mooy xale ya xale nga xam ne dañoo dawoon dégg nga maam tong waa dëkk bu dugg coow xuntu ak aliwo ga raxiim raxiim gi dañu cee wuute am na ñooy raxiim gi mooy aliwo gi nga xam ne dégg nga maam dañu see bindoon xale ya seeni tur ak seeni askan ak seen histoire daal di koy wees ca buntu xuntuwa bañ leen bañ leen fa fekkee am ñu ne raxiim gi loolu lay firi am ñu ne déedéet raxiim gi mooy turu dëkk ba am ñu ne déedéet raxiim gi mooy montagne ba am ñu ne déedéet raxiim gi dëng nga maam mooy turu xuntuwa alaa kulli xale wuute nañ ci raxiim gi lan lay tekki yàlla mu ne kaanu bokk nañu de min ayatina ajaban ci sunu kéemtaan yi nga xam ne ay njombalaan lañ bokk na ci kon du lii dong mooy miracle ci alquranu karim alquran ay miracle dong la mujizatul kubra la dégg nga yàlla nag commencé dugg nag di nettali sunu borom yàlla di nettali seyduna muhammad xale ya ba ñuy gàddaay nan la mbir ma demee suñu borom nee na maa koy nettali allahu akbar ndax lii dañ ko laaj seyduna muhammad te daf koo war a wax ca digg ba waru see bàyyi virgule ndax bu ko nettalee ci digg ba dana xam ne kat kii ab yonent la ndax lu muy wax suñu borom moo ko sant moo tax mu ne di nettali ci aaya fukkeel gi moo tax mu ne إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ñu ne is fàttalikul zarfun lil zaman fàttalikul awaa ba mu fatoo al fityatu xale ya fityatun mooy xale mu ngoog ila toog fii sa xuntu wa mu ne fàttalikul jamono ga nga xam ne xale yoo dugg nañ sa xuntu wa fa xaalu ñoom ñu ne rabbana yow sunu boroom aatinaa may ñu min ladun ko li joloo ci yow rahmatan yërmande sunu boroom dañoo bëgg nga daan ñuy may yërmande goo xam ne ci yow lay bawoo wahayyin ya yombalal lanaa du ñu am min naa sunu mbir mii rasadan ak yóbbu ak jub yombalal sunu mbir mii te nga jubal ñu yow sunu borom yàlla xale lii la ñu ñaan sunu borom yàlla ba ñu ñaanee lii ba noppi ba dugg ci biir sunu borom daal di yebal ci ñoom nelaw daal di koy sol seen nopp ya ñu daal di tëdd daal di nelaw ñetti téeméeri at ñu tafal juróom-ñeent yàlla rey leen loolu la yàlla di nettali ci aay gi ci topp ci aay fukk ak benn moo tax mu ne fadarabnaa ala aadaanihim fi lkahfi sinina adada sunu borom ne fa darabna sa saasi ñu daal di dóor ñu daal sànni ala si seen nopp ya nelaw fil kahfi fekk ña nga ca biir xuntu wa siniina adadan ay at yu limu maanaam juróom ñetti téeméeri at yu tafal juróom-ñeent ñu koy nelaw allahu akbar yàlla bu mu reyee xale day na dekkalaatal yee leen dégg xale ya màggatuñu bi jaawuñu seen yaram ya yàquwul yàlla yee leen nag ñu daal dekki dekkiwaat dégg nga ñuy laajante seen biir suñu borom di nettali ne summa baasnaahum lina'lama ayyul xisbayni ahsaa limaa labisuu amada suñu borom nee na summa baasnaahum après ma dekkal leen ba ma leen rey ñetti téeméeri at dégg nga maam yu tofal juróom-ñeent suñu borom nee na ma leen dekkal ñu daal di dekk ñoom ñëpp ñu daal di yeewu la moo tax ma dekkal leen li naalama ngir ñu xam ayul xisbayn ana kenn ci ñaari kuréel yi ah soo moo gën a peeg li ma labisu la sax sa su wa amagan ci kem yàlla mu ne dama leen dekkal ngir ñoom ñu laajante ngir ñu xam kan moo gën a peeg ñaari kuréel ya li ña sax ca xuntuwa ñu ne ñaari kuréel la ñoo xale yi dañoo xàjjale ko woon kuréel gi ak kuréel gi muy ñaari xuntu ya ñaari kuréel yi sunu borom nag day wax Seydina Muhammad nekk duggaguma ci kii bi de loolu lay taalee rek ay sunu borom moo mën a nettali li mu nettali lii lépp duggagu si histoire bi sunu borom ne ko la pourtant Seydina Muhammad duggaguma si histoire bi de loolu ab lay taalee rek loolu benn lancement la bu ma lay lancement sa film bi <laughs> allahu akbar moom lay nettali fii si ay gis topp moo tax mu ne nahnu naqussu alayka daanu la nettali nag nabawum seen xibaar bil xaqi ci dëgg. la ma doon noonu loolu lay taale rek loolu laa sama noonu ci film bi dëggagu maa ngi soog a si film bi nahnu naqussu alayka nabaahum bil haqq danaa la nettali seen histoire ci dëgg maanaam du ma bàyyi dara lépp laa lay nettali du ma bàyyi virgule suñu bu ne du bàyyi dara allahu akbar na innahum naka xale fit innahum naka ñoom fityatun ay xale la ñu woon de amanu dañoo gëmoon suñu boroom amanu gëmoon nañ bi rabbim seen biroom wa zidnaahum huda yàlla mu ne ma doolu leen ak njub dañoo gëm suñu borom yàlla bu pare ma doolu leen ak njub waaw ñoom nan lañu mën gëmee suñu borom yooyu yëgal ne seen jamono dafa tombeloo nag jamonoy Insa Insa ñëwoon na ba dem bi mu ñëwee ba dem xale yooyu ñëw nag dégg maam tombeeg benn jamono boo xam ne guur gu saay-saay moo fa nekkoon guur gu mu ngi tuddoon Diqyaanuus buur la bu saay-saay boo xam ne dégg maam dafa féeteerlu mu jël ay xërëm yett ko dégg nga daan na ñii ñooy yàlla oo waa dëkk bi yëpp daan na jaam leen xërëm bi ñu si ëpp daal di moom ca loolu dégg nga moo xale yi nag gëmuñu ko xale yi dañ daan ànd chaque jour di toog di waxtaan ba benn bis ñu daal di toog yoo xam daan ni waa ñun su suñu kër ñoom li ñuy jaamu noonu lool lool lool yàlla ñu war a jaamu gëm ko wéetal ko keneen ki daan ni waa yow nga dëgg de. suñu waa kër tamit ñoom ay yàlla la ñuy jaamu ay xërëm la ñuy jaamu keneen ki tamit daan waaye wa nga dëgg ñoom te loolu ñuy def ñoom ñoom ñett ñu ñu ñuy waxtaan ci loolu ñoom juróom-ñaari di waxtaan di waxtaan ci loolu après ñu bokk benn pas-pas nag di jaamu borom asamaan ak suuf di ci dox di ci dox dégg nga ba mu amaatee am nag ay ay jeexantal nag ñu xam ne xale yii ndekete ñoom yi leen leneen la ñuy jaamu lu bokk la suñu xërëm buur bi daal di leen oo di leen laaj. yéen ndax da ngeen am beneen yàlla boo leen di jaamu bokk la suñu yàlla yi ma rangele fii nii xale yi daal di wax ay wax yu bari sax wax yu rëy dégg nga nekk ñun suñu yàlla mooy borom asamaan ak suuf dégg nga lii ay xërëm la du ñu ay yàlla dégg nga buur bi tëkku leen xale yi daal di génn daal di daw nag daal di dem sa xuntu dégg nga suñu borom di nettali ne xale yooyu maa leen dëgëral maa leen sol ci ñoom ngëm yàlla dëgëral seenum xol ba muy mën a taxaw ci kanamu buur bi di ko wax wax ji yow xam nga ne buur boo xam ne mos dégg nga soo ko waxee lu bokk la mu gëm da lay rey yu ndaw taxaw sa kanamu buur ba jaadi wax ak moom wax ju wax wax ju rëy ji lan la ñu wax sunu borom di nettali وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتطا nee na wa rabatna ñun yàlla ñoo dëgërale ñoo fas ñoo dëgëral ala qulubihim seen xol ya is fàttalikul ndax xaamu ba ñu taxawee ñoom xale ya ca kanamu buur ba fa qaalu ñoom ñu ne rabbuna yow buur damaa bëgg nga xam ne sunu borom rabbu samawaati mooy borom asamaani juróom-ñaar wala ardi ta kooku moom moom suufi juróom-ñaar lan nad'uwa du ñu jaamu min dunihi leneen lu dul moom alihan di nga def yàlla yëgal na yow buur sunu borom bi ñuy xamante ne moo ñu moom te koo la ñu war a sàkku mu mu dimbali ñu te la ñuy ci moom wéy ci ay ndigalam mooy borom asamaan suuf. moo bind suuf suufi juróom-ñaar tamit kooku la ñuy jaamu du ñu jaamu keneen rek def yàlla bu ñu fi bàyyi suñu borom bii oo keneen ku bokkul ak moom laxadu ci lu wér xul naa wax nañu isan kon satatan ak wax ju jubadi bu ñu fi bàyyi borom asamaan ak suuf ki talal jant bii dégg nga maam te kenn ci leeraay gi dégg nga di jaamu ay xërëm dégg nga wàcc nañu aw yoon tooñ nañu dégg xale yi continué de yemuñu si kaddu gi de xale yi dañoo jàpp que dañoo waas buur bi ba mu ba mu set si buur waaye waas buur bi waaye dañoo waasale sax ña nga xam ne mooy waa dëkk ba di jaamu ñeneen lu bokkal yàlla xale ya daan ne haulaa'i qawmun attaxadu min duni aliha lawlaa ya'tuuna alayhim bi sultaanin bayin فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا bëtiku ko ne haula yow buur yëgal ni gaa yi xawmu naa ñii si nii nit lañu de waaye nag ittaxasu dañoo jàpp min dunihi la leen lu bokkul ak yàlla da nga alihatan def ko ay yàlla dañu fee bàyyi boo borom asamaan ak suuf jël leneen jël ay bant daal di koy yett wala ay xee yett ko def koy xërëm def ko ay yàlla law laa yaatuuna xal seet ñoom ñu indi alayhim ci ñoom sultaanin bayin ñu indi firnde gu leer ñoom nañu fee bàyyi suñu borom yàlla jël ay xeer daal ko yett daf ko ay xërëm dégg wala ay bant def ko ay yàlla te nga leen woo ñoom ñu indi la ay firnde ci loolu loolu laa yaatuuna alayhim bi sultaanin bayin xale ya daan ne wa man azlamu fa man azlamu waa ana kan moo dàq tooñ mimman xam ne day duural alallahi ci yàlla kasiman ay fen ndax am na koo xam ne dégg nga maam moo dax tooñ koo xam ne day duroo suñu boroom yàlla ki nga xam ne danaan yàlla moo wax nangam yàlla waxu ko ka nga xam ne danaan lii mooy yàlla lii moo ñoo créé àddina lii moo créé nit ñi lii moo créé jinne yi ak bay yi may ak lépp ndekete ay mbóosóor la ki sàkk nit ñi ak jinne yi ak malaaka ak bay may ko kenn la mooy borom asamaan ak suuf dégg nga léegi nag sunu borom di nettali xale ya ba lañ ba ñu waxee lii buur ba ba noppi ah buur bi daal di mer lool ci lekk xale yi tontu ah dem ba leen rey ñi nga xam ne ñooy dag ya mooy ñi nga xam ne dégg nga maam ñoo ñoo ñoo ñoo ñooy conseil ya naka buur xale yi bu leen rey ñii ay xale lañ xanaa sax nga may leen une ba leen ba ëllëg sax bu fekkee ñëwaat nañ fii ñu weddi sax nga soo leen rey ah buur bi nee na ko loolu idée bu baax la daa nekkoon xale yi dem leen. dem leen ba ëllëg waaye bu ëllëgee su ma leen oowaatee te changé leen yàlla ngeen jaamu suñu xërëm yi danaa leen rey yéen ñëpp daal di tëkku xale ya xale bañ demee dégg nga sa guddi ga xale yi daal toog waxtaan daan ne ah, bu ñu xëyee suba buur bu ñu oowee dégg nga te waxuñu ko xërëm yi la ñuy jaamu dana def ñu ne nañ génn dëkk bi xale nañu gàddaay nañu tong dëkk ba ñu daal di rañaan génn ca guddi ga dégg nga di daw. di daw génn dëkk ba di dox di dox di dox ba fekk benn xunt daa dafay dugg ba ñu fa duggee nag am na lu xew loolu la yàlla di nette ci ay géej ci topp ci ay fukk ak juróom-benn sunu borom ne wa iz i'tazaltumuhum wa ma ila al yanshur lakum فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا sunu borom ne wa iz i'tazaltumuhum fàttalikul jamono ba nga xam ne tong nañ leen ñoom wa ma ya'buduuna ak la ñuy jaamu illa allah ndere yàlla fa ñu daal di fatu ilal kahf fii sa xuntu ba ba na ba xale tong waa dëkk ba yemoon ci tong waa dëkk ba noppi waa dañoo tong leneen lu bokk lax yàlla fa wu ilal kahf ñu daal di dugg sax biir xuntu nag ah yanshur lakum dana wasaare si ñoom lakum ñeer leen yanshur lakum dana tasaare si ñoom rabbuku seen borom min rabb min rahmati yi ci yërmandeem yàlla dina jëlu yërmandeem daal di koy wasaare si ñoom wa yuhayyik mu daal yombal lakum ne am amrikum seen mbir mii mbir faqan ak jàppandi mbir faxan gii am na ñaari wax yu ci am ñu ne mbir faxan gii mooy loo xam ne nit ki da koy soxlaawoo di ko dundee muy lekk ak naan maanaam ba ñu nekkee si xuntuwa suñu borom yàlla dafa def si ñoom soxlaatu ñu lekk ak naan maanaam moom mu sol si ñoom ay nelaw xam kuy nelaw doo lekk doo naan ñu ne bërëb boobu suñu borom loola ca na moo tax mu yóbbu leen foofu ca bërëb ba ba pare solo ay nelaw waaye déedéet boo demee ti mu si wàlle bi wala ba demee si tafsir kii tafsiru ibnu kathir nee na faxan gi mooy sunu borom yàlla daa soo ci ñoom ak ngëm yàlla goo xam ne xale ba ñuy génn xalaatuñu lekk xalaatuñu naan suñu borom dong lañ gis mooy mir faxan xalaatuñu leneen lu nekk seen xol ya ko sunu borom yàlla tiituñu rafuñu xalaatuñu fu ñu jëm tamit ñu ne loolu mu am ci diggante muusa ba muy génn dégg nga ànd ak nit ña ba ñu demee ba jib jib dex ga dégg nga gars yi ki di ñëw firaw na la de inna la mudrakun kii di ñëw ni firaw na la tala ñuy rey Moussa ne leen kalla inna maa ya rabbi sa yahdin Moussa ne leen déedéet mbir mi du demee noonu maa ngi ànd ak sama borom suñu borom dina ma gindi gisul lu dul yàlla Moussa gisul woon lu borom yàlla ñu ne mit fa an gi tamit nu ma amee si Moussa noonu amee si Seyduna Muhammad Seyduna Muhammad keroog bu muy génne ànd ak Abu Bakrin de gàddaay dem sa xaaru saw dugg ca biir xuntu wa illaa tansuru faqad nasarahu llah iz axrajahu alladina kafaru thaniya snayni iz huma fi lgaar iz yaqulu li saaxibihi laa taxzan inna allaha maana fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudi lam tarawha allahu akbar aboubacar moo ànd ak seydina Muhammad ba ñu dugg ci biir xunt wa dégg nga sunu borom nee na iz huma fi lgaar ba ñu nekk ci xunt wa iz yaqulu li saaxibi laa taxzan inna allaha maana la indi loolu yéeféer bi nga xam ne dañ doon wër Seydina Muhammad ay wër Aboubacar ñëw ñu ba taxaw ci bi ci kaw xunt bi nga xam ne bu yéeféer bu si suuf sax dana gis Seydina Muhammad Aboubacar daan yow Seydina Muhammad yéeféer bii de bu xoolee ci ay tànkam danañu gis Seydina Muhammad naka yow Aboubacar loo njort si ñaar ñoo xam ne suñu borom moo leen ñetteel mu ne moo tax mu ne laa tahzan inna allaha maana bul tiit bul am benn njàqare yàlla ngi ànd ak ñun gisul ku dul yàlla mu ne mooy mi faxaat ngi tamit day dugg ci loolu si tafsir ibnu kathir tafsir mu guréy ga suñu borom bàyyi na loolu di nettali nag léegi xale ya nan la ñu nekkee woon ca biir xuntu xam ngeen ne mos mbokk yi nit koo xam ne day nelaw ñetti téeméeri at yu tefal juróom-ñeent ba pare nga yeewu màggetoo saw yaram yàquwul dégg nga nga daal di beesat pul comme na nga meloon loolu kimtaan la mbokk yi nan la mel suñu borom moo koy nettali suñu borom nee na ci ay téeméer ay fukk ak juróom-ñaar wa tara shamsa ida talaat tazawaru an kawfihim daat alyamin wa ida garabat وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا mu ne sunu borom di nettali nag bañ nekk ci xunt wa bi ñu duggee ci xunt wi xoolal bu baax jant bi mu ngi génnee ci penku di sooy fa nga xam ne mooy so bi waaye ñoom ci xunt wu ñu nekk xunt wi ci booru càmmañ la fi mooy ndeyjoor waaye booru càmmañ la bunt bi nekkee nga xam ne jant bi bu génnee gis nga bunt bi fii ne fii lay nekkee bunt bu fekkoon ne daa daa nekk ci kanam jant bi bu génnee jant bi mën a mën na leen a lakk ndax day dugg ci biir ceeñeer day ci biir bu fekkoon bunt bi dafa nekkee ci góor saw tamit jant bi so mën na lekk mën na lakk xale ya moo tax suñu borom daal def xuntu wa mu daal féetee boru càmmeñ dégg nga moo leen nettali ci aay gi moo tax mu ne watara shamsa da gis jant ba isaa talaat bu fenkee tazawuru day jeng an tafim ci xuntu wa zaatal ci boog ndeyjoor wa ida garabat buy so taxriduhum da leen di bàyyi féete leen zaatal simaale ci goru càmmeñ boogum ñun daal fii fajwatin min nga ña nga dugg ci biir xuntu wa borom ne jant bi bu fenk dégg nga day bàyyi xuntuwa ci boorog ndejooram waaye tamit buy so day bàyyi xuntuwa ci boorog càmmañ xale yaa ci biir xuntuwa tëdd di nelaw allahu akbar yàlla mu ne dalika min ayatillah dalika min ayatillah yàlla mu ne lii dafa bokk ci kémtaani sunu borom yàlla yi allahu akbar mu fexe ba dugal xale yi ci xuntu woo xam ne dégg nga maam jant buy génn du leen mën a lakk buy soo tamit du leen mën a lakk zalika min ayatillah man yahdi llahu fa huwa almuhtad yëga képp koo xam ne dangaa jub suñu borom moo la jubal kooku dong mooy ko jub te kenn mënu laa réeral wa man yudlil bu ko firee ku de bu firee mukk koo xam ne suñu borom da laa réeral yàlla du réeral kenn da nga naan waa wa man yudlil képp koo xam ne suñu borom dalaa seetaan ba nga sànku ci maanu teem falan tajida lahu kooku de du am mukk di ko ñeel wala yéen ak féetewu koo xam ne murshidan mënees na koo gindi képp koo xam ne suñu borom dalaa seetaan ba nga tegu ci yoonu sànkute yégal ne kooku amul kenn ku ko mën a féetewu ba mën koo jubbante mënul nekk moo tax yàlla bu ñu yàlla seetaan yàlla bu ñu yàlla seetaan yàlla ñu suñu borom yàlla gindi ñu ba ñu mën a jub nga xam ne bu ñu xësee bu jub kenn mënatuñoo sànq ba tey suñu borom continuer di nekk lii xale yi ba ñu nekkee ci biir xuntu ba nan lañ doon nelawee ci biir xuntu ba suñu borom nee naa damaa sol ci ñoom nelaw ba pare xale ya seen bëti ni xël di xoole nelaw goo xam ne seen bët day xoole yàlla mu ne bi mu ne soo ay nelaw damaa def seen bëti di xoole ba nga xam ne yow boo dugg ci xuntu ba dégg nga ba tiim xale ya da ngay njort ni ñii dañuy nelaw da ngay njort ni ñii dañuy xoole bàyyi leen da ngay njort ni ñii dañuy xoole ndax seen bëtt na mi xoole ndekete yow ñu ngi ci ay nelaw yu xóot dee nañu sax foofu suñu borom ne wa taxsabuhum da ngay njortu ay xooleen ne ñoom dañuy xoole ndax seen bët na mu xoolee na mu ubbeekoo waaye nag wahum nekk ñoom ruxuud ñu ngi ci ay nelaw yu xóot allahu akbar sunu borom ne wa nuqallibuhum ma nga leen di wëlbati zaatal yamini wàllug ndejoor wa zaata simaali ak wàllug càmmañ yàlla mu ne xale bu ñu tëddee ci boorug ndejoor lu yàgg dégg nga ma wëlbati leen yóbbu leen ci wàllug càmmañ ndax sunu borom bu leen bàyyi woon ñu tëddee ci génn ak wàllu dong dégg nga suuf si dana lekk ge wàll wàll gi ñu tëdd bu ñu fa yàggee moo tax bu ñu tëddee ci wàllug ndejoor lu yàgg sunu borom nee na ma wëlbati leen yóbbu wàll leen ci wàllug càmmañ di leen wëlbati ba nga xam ne yara seen suuf si du suuf si du mën a lekk seen yaram allahu akbar bu leen bàyyiwoon si benn place donc wëlbatiwu leen kon suuf si dana lekk seen yaram ba moo tax mu ne wa nu xallibu maa leen wëlbati zaatal yamini wàllu ndejoor wa zaata simaali ak wàllu càmmeñ wa kalbuhum ñu ngi àndoon ak ab xaj de baasitun mu ngi tàllal ziraayn ay përëgëm de fil wasiid ci ëtt ba wala sa buntu ba am na ñaari wax yu ci am ñu ne mu ci buntu ba ñu ne mooy ca digg ba xale ya ba ñuy génn ndekkete dafa amoon ab xaj boo xamante ne dégg nga maam da na a toppoon ba ñu dugg ci biir xuntu ba xaj ba daal di dugg ak ñoom ci biir xuntu xaj ba nag nee na sunu borom nee na di nettali ba xaj ba nettali na mu def nee xaj ba dafa ay tànkam nga xaj na muy tooy di bóof xam ngeen bóof noonu la xaj bi def daal di bóof ca ca ca bunt ba dégg nga am ñu ne déedéet waaye ca biir ëtt ba falaa laa xaj ba daal di bóof man ne ku leen di garde allahu akbar moo tax mu ne lawit talaata ay boo séntu woon alayhim seg si ñoom boo demoon bu dugg si xuntu woo ba tiim leen la wallayta da nga walbatiku firaaran di daw wala mulita da nga fees del ruban ci tiit minhum bi tukkee ci ñoom suñu borom nee na way boo juumoon bu dugg ci xuntu wa ba fekk xale yeen na ma leen rayee tëral leen say bët ya di xoole ak xaj ba na mu nekkee seen buntu ba dégg nga dégg tiit tiitaange goo xam ne da nga rek àbb njol gi danga daw te da nga tiit tiitaange goo rëy gu rëy goo xam ne danaa ba woo ci ñu ci melokaan xale yooyu allahu akbar moo tax muy nettali yàlla mu ne lii am miracle la boo xam ne dama koo def bi ma ko defee ba pare a ah, dëkkal naa leen ngir ñoom ñuy laajante nag ku nekk di laaj sa morom diir bu ñu fa def dégg nga bu ñu yeewoo tamit foog ñu soxlaa lekk ak naan xam nga suñu borom dafa bëgg ñoom mu ñu am benn yitte moo tax mu sol ne ay law ay nelaw ba nga xam ne dañu am lekk du am naan xam nga ki ki moom boo xasee bay nelaw dégg nga maam doo soxlaa lekk doo soxlaa naan waaye nag comme que nag yeewu nañ foo noo soxla lekk foo ñu soxlaa naan loolu la yàlla di nettali ci aaya gi si ci aaya fukk ak juróom-ñeent suñu borom ne وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم yàlla mu ne wa kadalika naka noonu baasnaahum dekkal naa leen yeewaat naa leen si seen nelaw ya la moo tax li yatasaalu baynahum ngir ñuy laajante seen biir allahu akbar ah la moo xew qaala wax na qaa'ilun kenn wax na minhum ku bokk ci ñoom ne leen kam labistum waaye yéen ban diir lañu fi def ban diir lañu def ci xunt bi lii ab laaj la boo xam ne kenn moo ko laaj ci ñoom ah qaalu ñoom kenn benn kuréel ba daan ne labis sax nañu yawman benn fan aw baada yawmin wala lu matul fan ndaxte ñoom ba ñu fay dugg daanaka ak waxtu suba la dégg nga seen borom bi mu leen di dekkal nag dafa jàpp ngoon booru ngoon la mu nga ay 6 heures dégg nga maam si misaal si la ñu yeew kenn ka daan waa ñun dafa mën ne bés lañ fi am de waxtu maanaam bés lañ fi am wala lu matul bés yow man aw baada yow min ah bi ñu waxee lii qaalu ba daan ne rabbukum seen borom daal alamu moo gën a xam bi maa labistum li ngeen fi sax de fa baasu kon nag yebal leen axadakum kenn bi waraxikum si seen xaalis bi haadihi bi ngeen yor nii ilal madina sa dëkk ba ñu ne xaalis bi ngeen yor nii nañ ci nañ ci dajale ñu yónni kenn mu daal di dem ah, sa dëkk ba dégg nga fal yanzur mu xool ayyuha ana kan su ñoom azka moo gën a sellale taaman si ñam de mu ne yow kañu yónni woon mu ngi tuddoon yam li xaa yam lii xan kenn la ci xale ya moom tamit baapaam ak yaayam bokkoon nañu suñu notable dëkk ba papaam xaalis lool ñu naka nag yow mii yaay dem jëndal nañu ñam waaye nag boo demee ca marché ba na nga xool koo xamante ne ñam bu sedd lay jaay azka taaman mooy koo xam ne ñam ba muy jaay bu law lay doon du doon mbaam xuux wala la muy rey tamit day tudd sur borom yàlla mooy azka taaman dégg nga moo tax mu ne ko falyatikum bi rizqin minhu bu ko defee ñu mën ñëw indi wërsëg goo xam ne mën nañ see fàggu lekk ci mën cee naan waaye nag wal yatalattaf ñu ne baat bii wala talataf bii mooy baat bi nga xam ne moo nekk ci digg alxuraanu karim ci digg alxuraanu karim alxuraan boo doon xëj boo doon boo doon xaaj ji baat yi di compter teg fii compter teg fii compter teg fii compter teg fii baat bi nga xam ne mooy nekk ci digg alxuraanu karim mooy baat bii wala yatalataf mu nga ñu nekk nag na nga na nga nëbbu na nga nànku wala yatalataf mooy na nga def nànk-nànk bu la kenn gis na làqatu wala na bu mu yëg comme ci yéen ahadun kenn na nga làqatu ba kenn du leen yëg def leen nànk-nànk rek waaw bu fa nekk di di kii na nga làqatu daal ba kenn du xam ne yow mii danga nga bokkul ci xale yi nga xam ne dégg nga maam dañoo dawoon daa dugg si xunt wa ah wala moo tax ñu ñuy dénk yam li xaali la moo tax ñu naakaan na nga làqatu ah nag de moom bu xamee ne bu ñu xamee ne kii bokk na ci xale ya ñoom pour ñoom buur ba pour ñoom ba léegi buur ba nekkoon sa ma ma retour sax buur ba ñu nekkaloon moo fa nekk ba tey nekk buur boobu dee na dégg nga ba beneen buur ñëwaat dee muy ñaari buur ba beneen buur ñëwaat dee muy ñetteelu buur ba ñeenteelu buur ba lañ fekkee ñeenteelu buur ba moo ko fekkee dégg nga moo tax ñu ne ko innahum ne ko ñoom saay saay yooyu buur boobu ak ñamoo àndal yadharu bu ñu feeñalee aleykum si yéen yarjumukum daañu leen ñung xam nga ñung mu ne yow yam li xaal looy fexe ba buur bi xam ñu danañu ñung ñung mooy ñu jël ay doj du ñu sànni du ñu sànni ba ñu dee yarjumukum aw yuidukum fi millatihim bu ñu njugalee tamit daanañu forcé ba ñu weddi suñu borom yàlla ñu nekk ay yéefar comme ñoom walan tuflixu taw ba waa du ñu texe idan kon abadan ba faw bu ñu fexee ba buur bi daal ñu ne xam dégg nga danañu ñu ay xeer ba ñu dee wala dégg nga maam mu forcé ñu ñu tu ñu daal di tubbi nekk ay yéefar te bu boobaa dootuñu taxeti ba faw dañuy alku comme ñoom suñu borom di continuer ci aaya gi ci topp ci aaya ñaar fukk ak benn suñu borom di leeral nag léegi lan moo tax mu dekkal gaa yi bañ gis leen moo tax mu ne wa kazalika naka noonu na feeñal naa alayhim xale ca ñoom li yaalamu ngir ñu xam anna waada allahi naka digal suñu borom yàlla gi xaqun dëgg la de ngir ñu gëm ne digal na suñu borom yàlla suñu borom digal gi mu digal ne nit ñi daanu dee te daanu leen dekkal danaa leen réglé loolu am la yow xam nga ne moos koo xam ne dégg nga maam suñu borom dalaa faat ñetti téeméeri at ñu tofal juróom-ñeent kii bu la waxee ni mën naa laa dekkal war nga koo gëm yàlla mu ne lii dama koo def ngir rek ñu xam ne man am naa kattan pour dekkalaat leen te li gën a yéeme si xissa bi yàlla bu muy feeñal xale yi dégg nga daa wommat buur ba ak waa dëkk ba yëpp ñu ñëw ba tiim xuntu wa ba xale bi dugg ba ci biir dégg nga ba ñu xam ne waa xuntu wa xale yaa ngi fii ci biir dégg nga ak seen yaram bi dara yàqu ci sunu borom su leen rey xale yi ba tey waxuñu. ba ñu ba xale ba duggatee ci biir ne leen bu leen dugg ci biir xaaral ma ma dugg ci biir waxtaan ak gaa yi dégg nga ba mu duggee ci biir yàlla faat xale ya allahu akbar dégg nu mu demee nag loolu la Alxuraan di nettali nee na yam ni xam ba mu demee sa marché ba ak xaalis ba mu yoroon fekk ay jamono jamono jaar na fi xaalis yu bari jaar na fi ak melokaan nu mu mel ak yére mu sol nekk lu doy waar nekk lu yéeme ci waa dëkk ba bu ñëwee ci kenn naka jaay ma taalal ko xaalis bi kenn ku xool xaalis bi nag waaye yow sa xaalis bi sa xaalis bi baaxul de am waay ak sa yëri yi nga sol yow sa yëri yi foo foo jóge daal di yéemu ci xale bi ak melokaan bi mu yor dégg nga ak xaalis bi mu yor xale bi rocceekuwaat yam li xat ci keneen jox ko xaalis bi naka jaay ma bu keneen ki téye xaalis bi nag waaye sa xaalis bi baaxul de bi baaxul de ak sa yi nga sol nii yow yow dégg nga waat yow noonu la ko continuer ci marché bi di wër. ku mu ñëw ci moom rek mu ànd ak xale ba ku mu ñëw ci moom mu ànd ak xale ba ba waa mars ba yëpp dafa am mbaboor ànd ak si ginnaaw xale bi ndax xale bi nu mu yéeme ba am génn góor gu mag boo xamante ne am na expérience góor gu fa yàgg sax laq ay ay at yu bari moom mooy ñëw ñu talal ko xaalis bi mu ne leen ma xool ñu xool xaalis bi mu ne leen xaalis bii de dégg nga mu ngi nekkoon ci jamonoy Diqyaanuus mooy buur ba mu ne xaalis bi jamono Diqyaanuus la woon yow xale bi yaay kan. xale bi nar a expliqué ñu ne ko kaa ñu yóbbu la ca buur ba ba ñu demee ca buur ba buur bi ne ko damaa bëgg mu wax ma sa histoire yaay kan bul tiit buur raf fekk xam nañ ko buur boobu dee na bu yàgg ba beneen buur ñëwaat ba beneen buur ñëwaat ba buur bi dégg nga buur ba sax ab jullit la xale bi commencé leen nettali ñu ne ko ñun de xale bi ne ñun de ay xale lañu woon ñu ngi mat juróom-ñaar ci jamono di xiyaanuus de mur boobu daf ñoo bëggoon a faat daf ñoo bëggoon a rey ñu daal di daw dugg ci aw xunt ñu ngi nii nag ba ñu yeewoo nag ñu ne nañ ma yónni pour ma ñëw fi jënd lu ma lekk ñu ne ana ñeneen ñi juróom juróom-benn yi des mu ne leen maa leen bàyyi su xuntu wa mu ñu ne leen acca nañ dem ñu daal def am mbaboor pour jëm sa xale yi allahu akbar ba ñu ñëwee xale bi ne leen taxaw leen ci bunt bi ma dugg parce que bëgguma ngeen dugg di leen tiital bàyyi leen ma dugg wax ak ñoom ba noppi ngeen ñu soog a génn ngeen soog a ñëw gars yi nag waaw ñu ngi xaar ñu daan def am mboboo daa taxaw ci bunt bu xunt wi di xaar xale bi xale bi dugg ci biir yëq naa mu nga yam lay xaar dégg nga suñu borom yàlla daal di leen rey rey original nag ñu daal di dee faw nag continuer dee ñu toog bu yàgg xale bi génnul ñu daal dugg ci biir fekk ñoom ñëpp dee allahu akbar ñu daal jël nag seen tur bind ko bind ko bind seen seen seen askan bind seen histoire dara koy def ca benn aliwa daal koy wër ca nga xamante ne mooy ci buntu xuntu wa moo war a ga yàlla wax war raqimi kaanu min ayatina ajaba dégg nga moo tax mu ne wa kazalika naka noonu atharna alayhim feeñal naa leen ca ñoom ngir ñu gis xale ya ba ñu gis leen dama koo def li yaalamu ngir ñu xam anna waadallahi xaq ne dëgg la sunu borom yàlla ñëw la de yàlla lu mu dëggal ne dana ñëw dana ñëw dëgg la waa anna saata ndaka bés penc laa rayba fiha amul sikki sàkka aatiyatun aji aji dikk la ngir ñu xam ne yowmal xiyaam dana dikk amul benn sikki sàkk laa rayba fiha wa anna saata aatiyatun laa rayba fiha loolu la woon moo tax mu nekk laa rayba fiha amul ak sikki sàkku ci am de is fàttalikul yatanaazauna ba ñuy xëccoo baynahum seen diggante amrahum seenu mbir bañ ba ba xale yi deewee ba noppi dañ doon xëccoo ñaari kuréel yi ñoo fa nekkoon kuréel gu njëkk gi lan wax fa qaalu ñoom ñu ne ubnu alayhim nañu tabax ca xale ya bu nu yaanan ab de nañ jël ab tabax daal di koy wërale ci biir xuntu wa ñenn ñi ñoo wax lool benn pàcc bi moo wax lool ah beneen bi daan ne déedéet rabbuhum seen borom daal alamu bii moo la gën a xam de qaala waa na allazina ña nga xamante ne galabu ñoo not ala amrihim sa mbir ma la nattaxisana ñu ne nañ ko jàpp alayhim si ñoom masjid daan jàkka beneen kuréel bi daane ne déedéet duñ ko tabax de dañ leen di dañ koy place bii dañ koy sellalal dara koy def jàkk dafi jaamu suñu borom yàlla allah kon ñaari kuréel lii la ñii daan nañ ko tabax wërale ko ñi daan ne déedéet dañ koy def jàkk dafi jaamu suñu borom yàlla ay bii nag am ñu si tegtaloo ne war na tabax si ay jàkk déedéet lii bokkul ak at gi te tamit du jullit ñi boo demee si tafsiru dégg nga tafsir imam Shinqiti dégg nga moom nee na wala nga dem ci nga xamante ne mooy tafsiru euh, fatku ba fatku xadir dégg nga nee nañ wax suñu borom leeral la fu mukk ne jullit ñi ñoo wax ne nañ ko tabax dene wa qaala allazina galabu ala amrihim ña nga xam ne ñoo noot waxu fa jullit la waxul ab yéefara mais mbooloo mi nga xamante ne moo ëpp la kon dañuy yemane foofu incha allahu rabbi bu ëllëgee bu neexee suñu borom yàlla ñoo ne tàmbali suñu borom fii lay waxee ne ñoom ñaata la ñu woon dégg nga benn lañ wala ñaar wala ñett wala ñeent wala juróom wala fukk lañ ban lim la sunu borom moo ñu koy nettali ci gi ci topp in uridu illa islaahu ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh